إن الله وملائكته يصلون على النبي estati di gàmmu ak El Hadj Mouhamadul Amine Ndiaye xaadimul muslimiin الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم wa salawaatullahi wa salaamu ala allazi wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bokk téléspectateur u kër gi di Faaida TV bokk internet fu ngeen mën di nekk ñoo ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di amaan mbégte lu rëy ci dikk ak yéen ci suñu deuxième jour ci statut di gàmm muy statut yi nga xam ne dañ ko jagleel ngën ji mbindéef ki nga xam ni lu yàlla sàkk rekk mooy sa sang daana wax moom alayhi salaatu wasalaam ana walla di aadam man maay sangub lu aadama jaboote xataa sax ba ci aadama moom mooy ab sangam bokk yi yent yàlla muhammad moomu lii firndeel ak càngam lii firndeel ak siyaadaam bokk na ci ay siiñ ay màndarga yu yàlla def ci moom suñu xoolee aw turam moom yonente bi alayhi salaatu muhammad li muy symboliser li muy définir mooy koo xam ni léppam yàlla sant na ko yàlla gërëm na ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw tur moo ko fi dàqale waaye yàlla yëkkati aw turam yëkkati woo xam ni yëkkateewul wenn tur noonu wa rafaana laka dikrak man maa yëkkati saw tur li tudd muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ëpp lu lu weneen tur ci kaw suuf muy tur wu yàlla barkeel tur woo xam ni li muy symboliser mooy léppam yàlla sant na ko gërëm ko waaye boo xoolee tur way juróom bu góor abdullahi feeñ ci jamono boo xam ni li ëppoon ci li ñuy idaafaal ci abdu suñu waxee abdu lañ cay teg mooy luy signifier bokkaale yàlla abdul uzza maanaam ci misaal jaamu uzza mu doonoon benn xërëm bu boo xam ni ku remarquable la woon ci ñoom wala ñuy tudde abdu shams lu mel ni jaamub jant bi yu mel noonu wala abdu saxr jaamub doj bi yu mel noonu mooy li gënoon a siiw lu jiitu yonent bi di ñëw waaye xoolal waajuram tur bi ko yàlla jox abdullahi muy symboliser ubudiya jaamub yàlla waaye di symboliser li nga xam ni mooy waxdaaniya kennal yàlla nga xam ni tur waajuram wu góor sax doo ci gis lenn loo xam ni dafay dugg ci bokkaale wala lu ak doyadi way juróom bu jigéen amina bokk yi amina jóge ci al am wala al amaanatu muy sécurité amina di koo xam ni léppam yàlla daf ko sécuriser mooy koo xam dafa am sécurité loo xam dañ ko sécuriser mooy turu way juróom bu jigéen amina bintu wahb ba ci maamam bu jigéen muy wahb mi jur way way juróom bu jigéen amina soo xoolee wax wahb dafay delluwaat ci turu yàlla mi nga xam mooy wahaab muy mayaakon bi nga xam ni ah képp ku am rek moo la may moom borom bi subhaanahu wa taala nga xool ki nga xam ni nii mooy xalimatu saadiya mi nga xam ni moo ko nàmpal moom alayhi salaatu wasalaam xalima dafay firi aji lawet ji ku lawet soo xoolee sax xalima bokk na ci turu yàlla yi alxalim féminin bi mooy xalimatu boo ci yokkee taa bi masculin bi di xalim mu bokk ci turu borom bi subhaanahu wa muy firi aji lawet ji ki nga xam ni dafa lewet mooy ki nàmpal yonent bi salaa salaam ñu idaafaal ci saadiya xalimatu saadiya mooy koo xam ne nii léppam texe la naka noonu ki nga xam ni moo ko yar ginnaaw bu way juróom bu jigéen génne àdduna muy amina bi mu génne àdduna ay man mi ko e, yar soo xoolee ay man ay man jóge ci al yumnu bi firi barke baraka loo xam ni lépp dañ koo barkeel noonu nga koy toppe moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba ci maamam Adnaan ñoom ñépp di ñu yàlla tànn purifier leen di ñu set di ñu sell su ko defee loolu dafay symboliser rek ni moom ku yàlla waajal la ci lépp waaye yàlla tànnal ko tam ngeen ji dëkk mu dëkk ci mu juddoo ci dëkk bi nga xam ni moo gën ci dëkk yi ni ko cheikhul xadim waxe ci bayit boobu ñuy ubbee ala lazi wulida xayra waladi salaatu bi may ñaan maa ngi nag ñaan nga def ko ci nga xam ni judd na di ngën ji doom xayra waladi waaye di ngën ji baay bi xayri waaye juddoo ci ngën ji dëkk moom alayhi salaatu wasalaam juddoo ci dëkk bi nga xam ni moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ni inna awwala baytin wadia linnaas lallazi bi bakkata muy néegam boobu nga xam ne ni mooy première pierre bi nga xam ni teg nañ ko ci kaw suuf te ay malaayika teg ko fa la juddoo moom alayhi salaatu wassalaam waaye yàlla tànn téere bi gën ci téere yi jox ko ko muy alquranul karim moom alayhi salaatu wassalaam yooyu yépp dafay symboliser waaye dem ba ci alquranam ji nga xam ni moom la wàcce wax ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bokk yi dañuy yem fii ci suñu statut di gàmm ci suñu deuxième jour wala jëm si troisième jour suñu ñëwee nag dañu fas yéenee nag tàmbalee indi wàccuwaay bi nga xam ni moom la yàlla jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom borom bi subhaanahu wa taala ci boppam wàccuwaay bi mu ko jox suñ ca jógee dinañ ñëw ci wàccuwaay bi ko saxaaba yi jox suñ ca jógee dinañ ñëw ci wàccuwaay bi ko animaux yi jox muy bàyyi ma ci boppam jóge ci ñëw ci les choses muy li nga xam ni sax dundu dunduñu muy jamaadaat montagne yeeg garab yi wàccuwaay bi ñu jox sallallahu alayhi suñ ci jógee nag ñu ñëw ci wàccuwaay bi ko taabiroon yi jox ba ci suñu mag ñi wàccuwaay bi ñu ko jox yooyu yëpp su ngeen ko bëggee xam rek topp leen ñu te bu leen fàttee abonné ci kër gi di Faaida TV ñu jox leen dig daje ci suñu troisième statut di gàmmu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.